mbir mi mi ngi tribunal cour d'appel depuis septembre 2018 ñetti at a ngi nii moom moo def appel ci am boobu la la ñëw ñetti at mi ngi tribunal mhm. ñetti at xam nga tribunal du lu du buñ buñ ko jël pamti pamti ko su dee benn nit ñaari nit ñetti ñeent juróomi nit kii dëkk kii kii dëkk ndakaaru kii dëkk fuuta kii dëkk kéedugu il faut kenn ku ci nekk jot sa convocation mhm. nga ñëw te ku jot sa convocation am nga sañ-sañ muy man muy keneen am nga sañ-sañ sa avocat ñëw ne damay laaj ñu renvoyé ko. Mhm. donc tribunal ñëw na septembre deux mille dix huit septembre deux mille dix neuf septembre deux mille dix neuf septembre deux mille vingt septembre deux mille vingt septembre deux mille vingt et un octobre ñu ngi novembre muy ñetti at ak ñaari weer dossier baa ngi tribunal. Mhm. ci appel bi ñëpp xam nañ ko ñëpp ko yëg. boobu jamono élection amul député amul. assemblée nationale amul. Mhm. Euh, euh, voté amul dara amul. ñuy renvoyé kon bu kenn wax ne dañ ko fa woo ndax politique. mais da jàpp ne manipulation dafa am ci mbir mi xëy na ak ni ñu ko. politiser conférence de presse. xam nga man candidat mairie bu Dakar woowaat nañu ko. suli nañu waaw xam nga man dossier man ragaluma gis nga wax. Mhm. buñ ko ragal. Mhm. suñ ko ragal rek daf ñuy gaañ nañ ko wax rek. gis nga Sénégal dañu toll foo xam ne fii ñëpp dañu jéppi politiciens yi. loolu ku la ko waxul waxul dëgg. ñëpp ñu jéppi xam nga tax ñu jéppinu suñuy jëfin ak suñu waxin hmm. ndaxte dañ naan politicien du wax katu dëgg politicien lu nekk mën na ci dugg lu mu dugg mën ci génn gëmul dara day manipuler loolu loolu mooy li nga xam ne ne bi lañ fi war a dindi ndaxte politique ak dëgg mën nañu ànd politique mën na lalu ci valeur hmm. politique mën na lalu ci mandute suñ la woowee tribunal yow bi ñu lay woo wóor la ne politique la luwu ci donte ne xeex bi xeexu politique la kenn du ko werante man du ma werante ne yooyu jamono Ablaye Wade moo nekkoon pouvoir man ma nekk ministre ci gouvernement Ablaye Wade mhm. loolu du ma ko weddi mu am mhm. ay nit ñoo xam ñenn ñi suñu parti PDS yooyu jamono ci lañu ñu bokkoon mhm. ñoom ñoo xeex ak moom mais du xeex bi la ñuy wax li ci mujj la ñuy wax donc loolu il faut que aussi ñu génne ci politique. na war a war a nangu ne boo bëggee boo bëggee seetal politique maître yaa ngi koy wax ndax yow euh, am nga fi jotee ak le pouvoir. yoon tegu tegu sa kaw. Euh, article quatre-vingt su ma juumal nga nga joyanti ma. Euh, nga ŋaññi. sunu justice jàpp ne sax dañu koy jëfandikoo est-ce que du tey jamono jooju nga tolloon. ba jàpp ne dañu instrumentaliser justice jamono jooju peut-être la Barthélémy Dias toll ci ku jëm campagne électorale annoncer sa candidature le 17 mai euh, pour ñu woo ko pour convocation pour le 10 novembre. dama naan ku ma xam ku may déglu samay wax masu leen li may wax toujours Ousmane Camara mooy sama seede parce que saa yi ma waxee ci justice ma tudd ko. Mhm. saa yi ma waxee dinaa ne magistrat bu bëgg jub di jub ku bëggul jub nag du jub dama wax toujours naan dama koy wax wax naa ko ci olof wax naa ko ci français j'ai toujours di qu'il y a des magistrats couchés am na mais les magistrats qui veulent être debout resteront debout daa loo xam ne dama ko jomb Cheikh Tidiane Koulibaly mu yore tey cour suprême mm-hmm. maa moom ñu doon jàng université donte moom a jiitu woon euh, kële Ali Siré Ba mi yore cour d'appel ñu doon jàng université man rus parce que dama leen xam. man gënuma leen jub. dàquma leen jàng gënuma leen gëm yàlla. man rus naa dajeeg Cheikh Koulibaly di sëgg. parce que dama xam ku jub la. moom du ma rus naa dajeeg Ali Ba di sëgg parce que ku jub la. donc man mënuma wax man que justice bi dafa dafa dafa dëng. dinaa wax ne ci biir justice am na ay nit ñoo xam jubuñu. lu ñu leen defloo ñu defloo ko. loolu am na loolu laa yàgg wax mais man masuma taxaw. rus naa man ma nekk avocat ak bi ma koy nekk ba léegi. samay moroom yu doon liggéey ci fonction publique wala privée ñëpp à la traité danu man rus naa nekk ministre la justice nekk avocat taxaw ëllëg di xool magistrat yi ne leen yéen jubul. am na ci ñu jub am na ci ñu jubul avocat yi am na ñu jub am na ñu jubul loolu laa ma sa wax. sama kaddu ba sul doon leneen lu dul loolu. nee nga sénégalais yi dañuy jéppi politiciens yi te muy dëgg mais est-ce que tamit du yéen pratique yi ngeen di def mooy xas ki nekk ci nguur gi ba mu neex leen ngeen dem wëlbatiku ànd ak moom non no non loolu loolu nag fii lañ ko fekk dama lay wax rek euh, Lamine Gueye ak Senghor dañu xeex ñëpp xam xeex nañu parce que yow amoon ay temps da nga virulent woon trop. ba tey ba tey dama lay wax xoolal dama lay wax dara jékki-jékki gis la. nga dem ndaw Kounda li may wax ragaluma ko ndaw Kounda li may wax ragaluma ko gis nga man bay xuloot Macky Sall mayuma ko dara. yaakaar nga ne man Macky Sall may na ma dara mayuma dara mayuma ko dara. xeex su jotee da ngay xeex ba mu saf-sap. Mhm. waaye gannaaw ay jàmm. ma ne la Lamine Gueye. mais est-ce que jàmm est-ce que jàmm ji tey nekkul woon nga nekk sa côté di ko doxal moom mu nekk ci côté di ko moo gën tey ji ñu bëri ci ko gisee la. dama lay wax naan Ngalandu ak Senghor ñu xuloo ak Lamine dañu xuloo ñu mujj juboo Senghor ak Lamine ñu xuloo ñu mujj juboo Senghor ak ma du Dia doon ànd mujj gën a kële euh, ñu xuloo. àdduna politique mooy demee noonu tey parce aussi. Euh, langue ab la ak langue la du ñu ay ennemis. kon yéen du ñu ay ennemis arrangé ngeen nax askan wi ni leen politique la woon wala réel politique moo ñu soo ko jëlee noonu. Mm. dafa mel ni tey ki ki ki nekk journaliste di liggéey fii. Mm. liggéey fii ba mu toog ba jig jamono ñëw. Mm. mu dem faneen. ah du benn benn la dégg dama lay wax rek dama lay wax rek. xam nga affaire bi mën nañ ci débattre fii ba suba. waaw ba tey mën nañ ci débattre fii ba suba maître waaye dama lay wax rek xam nga politique politique. Ah. politique fii ci àdduna bi demul àllaaxira mm-hmm. li ñuy politikoo lan la dañuy taxaw may wax man maa dama bëgg réew mi ni ma bëggee réew mi moo gën yow ni nga ko bëggee maa la ko dàq liggéey nga ne yaa ma dàq liggéey ñu ciy werante ñu fal la. mais maître soo nee boo ne politique ci àddina la yem. te nee nañ yombal xiyaam kenn ku nekk dina la laaj alors na nga yore woon réew mi. nan lañ la dénk dañ ko sàmmee woon. nga defee nga defee yombal xiyaam du fi nga koy liggéeyee. waaw mais boo nee politique ci àddina la yem xam nga dafa am topp yàlla topp yàlla donte ne mën nga wax ne politique bokk na ci topp yàlla waaye politique bokkul ci diine ndax politique mooy tax ki gëm yàlla ki gëmul yàlla ñëpp ñu ànd di liggéey c'est-à-dire bu ñu la déggee cest à yow boo waxee ne mën ngeen bañ a àndoon àndaat nga comparer sax tey les politiques li ñuy def muy transhumance ak journalistes yi euh, dafay mel ne da nga dindi valeur ci doxalinu way politique yi non dinduma parce que valeur mooy kàddu goo waxoon nga sàmmoo ak moom ki nga ŋàññoon démb bu fekkee ne gisoo mu soppiku nga wéy di ko ŋaññi. non est-ce que yow yaakaar nga ne damay wax parce que ce qui a changé bëgguma dugg dans les parce que soo ma laajee man dama bokkoon PDS euh, mu jógee PDS ñu defar suñu parti. Mm-hmm. bi defaree suñu parti ñu ngi ko defar jamono bi nga xam ne bi dafa am dialogue politique ak dialogue national. Mm-hmm. ñu dugg ci dialogue politique. Mm-hmm. Sénégal gépp du dégg Sénégal gépp gis ko ma jàpp ne ay nit suñu nangoo. suñu nangoo toog ci benn taabal di waxtaan suñu waxtaanee ba pare suñu jàppee ne am na loo xam ci waxtaan bi juboo nañ ci ñu ne est-ce que mën ngeen li ngeen juboo ngeen doxal ko loolu nga doxal ko gisuma loo xam da ngaan da nga transhumer wala amuloo valeur. léegi léegi lan moo changé lan moo changé nga ni lan moo changé entre temps. li changé quest li changé mooy ci li ñu déggoo. li ñu déggoo werante nañ fi ci code électoral mu metti ci ay élections yu metti ñu ñëw. sur téeméeri poñ bi ñu waroon discuter ñett wala ñeent lañ ci d'accord li ci des yépp ñu ànd ci. Mhm. loolu dafa changé. dafa changé. Mhm. d'accord ak yeneen ak yeneen ak yeneen.